wax nañu euh, ni woote jëmale ci lislaam di doxee ci Sénégal waaye itam wax nañu koo xam ne am na lu am solo lu mu doon taxawee ci wàllu jeunesse bi nga xam ne war leen teg ci yoonu njub ak yoonu éducation kooku la ñu toogal tey war a waxtaan ak moom nag ay tomb yu bari yoo xam ne ku ci nekk ci société bi rek war na am passage boo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp ndax expérience la boo xam ne yaatu na ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, ni ñu baaxoo oustaz ginnaaw bi ñu la tatagalee ci émission bi rek mooy invité bi dafay daf ñuy tënkal ay jaar-jaaram bu ñu waxee jaar-jaaram jaar-jaaram ci biir réew mi jaar-jaaram ci bitim réew ni mu jànge fi mu màggee loolu rek ñu door a wéy ci émission bi oustaz alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala wa sahbihi wa wala euh, mbokk yi ñuy seetaan ci télévision wal faj fajri ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa waaye ñu ngi tàmbali ginnaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tàmbali ci di gërëm group bi di tàmbalee ci ki ko jiite ba ci ñi mu bokkal liggéey bi yëpp waaye nag surtout di gërëm équipe bi nga xam ne moo ñu ziare si tey te xam naa ne jo jànkonteel nañu lu bare bare bare pour pour dikk fii eh, ki jiite équipe bi di suñu doomu day Alxasan juuf di lépp ci nun ginnaaw bi ñu defee ubbi boobu xam naa li ñuy tontu ci laaj bu njëkk bi rek mooy suñu jaar-jaar amul solo dañu jaar rek fi nga xam ne fi la doomu jaar yëpp jaar ci senegal ñu ngi juddoo Sébikotane alaaji tàllaloo Lo di suñu wayjur wu góor ñu wax ay sutu ndaw di suñu wayjur wu jigéen foofu ci sa waxtaan la ñu yaroo fa la ñu jànge itam suñu wayjur wu góor daj lu nekk ci suñu formation dama naan alaaji Taala Lo sëriñ bu dul sëriñu jinne indil nañu ko indil nañu sax ba indil nañu ay naari gànnaar ñu duñu jàngal ngir bëggoon rekk jabootam jàng xàmmee Eh, tegu ci eh, ci ci yoonu lislaam bi nga xam ne ci la doon yëngatu moom tamit <coughs> bañ fa jógee ni ko doomu daara yëpp di defee ñu laxas li dafa wax tudd laxas dem ndakaaru jàng fa ci jaar fa ci ay sëriñ yu bare bare bare ki ci gën a ràññee ko di alaaji Ousmane Diaw bi nekkoon yàq jëf eh, ak yeneen ci biir ndakaaru waaye cen Ndar ak feneen Euh, daanaka suñu formation de base ci formation traditionnelle la ginnaaw bi la ñu jaar nag ci ci ay daara ay école école dit moderne jaar jëkk jaar ci école bi libanais yi ubbi woon foofu ci ndakaaru jaar ci école Abdoulaye Niass bo Ibrahima Niass radiallahu taala anhuma euh, nag dugg ci école franco arabe jóge fa dem Tunisie ñibbisi nag nekk ci yoonu njàngale bi ñuy jàngale nañu ba retraité ñu ngi nekkoon ci école élémentaire yi ak ci école publique yi nga xam école privée yi nga xam ne institut yi nga xam ne mboolo yi ñoo ko sasoon lu mel ne SECAS yi lu mel ne union culturelle musulmane ba ci jamaatu Ibaadu Rahmaan euh, jaar ci jaar yooyu jaar jaar yooyu daanaka suñu carrière professionnelle ñu ngi ko jeexalee ci euh, CFP centre de formation euh, pédagogique spécial bi nga xam ne euh, moo mujj nekk EFI léegi foofu la ñu euh, retraité ci suñu wàllu <coughs> yëngatu ci lislaam euh, daanaka mënees naa wax ne ku juddu ci këru daara rek ci Sénégal boo nekkul ci yoon woowu mooy war a jaaxal nit ñi waaye boo ci jaaree daanaka da nga sof rek ci fi mag ñi doon yëngatoo jaar jaar jaar itam ci seen joxañ ndax foofu lañu ñu joxañoon moo tax ci mbirum yëngatu ci wàllu association islamique yi jaar nañu ci union culturelle musulmane lu jiitu loolu sax doon nañ yëngatu ci yeneen yëngatu ba mën naa wax ndax booba temps fekk na association islamique yi ci senegal wax dëgg yàlla xaw nekk ci léthargie bu xaw a doy waar euh, ba ñu duggee ci union culturelle musulmane yàlla def mu gën a yëngatuwaat gën a suqalikuwaat ci lañu nekk nekk ci nekk ci ba ay xew-xew tax ñu jóge ca toog ab diir di di xalaat lu ñu war a def ba ci lañu créé jamaatu Ibaadu Rahmaan ci 1978 <coughs> euh, biñ ko créé te man li ma jëkk a nekk ci jamaa bi mooy secrétaire général adjoint ginnaaw bi ma nekk wis amir topp ci amir bi nga xam ne moo mm, am na ñeenti mandat ci jamaa bi mooy Oustaz Alioune Diouf Cheikh Alioune Diouf Alioune Habiboulah Diouf yàlla na ko yàlla yërëm euh, ma nekk adjoint am ba ginnaaw bi nag ma nekk amiru jamaa bi yor ko ñaari mandat euh, ci diggante boobu ñu jox ma yeneen ay charge yu génn réew mi d'abord euh, ci cadre IFSO IFSO benn kuréel la boo xam ne bi moom itam day yittewoo mbirum ndaw ñi boobu jamono ku ñu Cheikh docteur Moustapha ci di cosaanam di libaane waaye mu yàgg Koweït ak turki moo ko jiite woon ma nekkoon seen représentant ci Afrique de l'Ouest ginnaaw bi itam nadwal alami li shabab islami di waami ñoom itamit ñu tànn ma euh, li yàlla di def tànn bi ñu ma tànnoon ci IFSO mu ngi amee woon Kuala Lumpur Malaisie waaye tànn bi ñu ma tànn ci waame itam foofu la amee man ci euh, congrès bu 93 euh, ci ci Malaisie yor naa waame moomu lu war a mat fukki at ak juróom ñaar euh, jot naa ko retraité naa bu yàgg continuer yore ko ba fi mu nekk nii mën naa wax ne maa ngi lëkkaloo ak ñoom nekk fa conseiller kër gi ngeen ñëw nii tey ba léegi mooy siège orphelin yi nekk ci région cees barki démb rek lañ fi eh, jóge ci benn activité euh, donc ci gàttal loolu mooy yëngatu yi ak nag mboolem yëngu yi nga xam ne yii eh, dafa génn kaase ndax ñun suñu yëngatu dañoo doon ñaan yàlla ñu bañ a nekk ay ñu ñu sectaire ñoo xam ne ñi dañuy am taassub ci benn mbooloo taxaw tënku ci benn mbooloo ba mu tënkuñu ba duñu def yeneen yëngatu ba moo tax suñu yëngatu ci mboolem cadre yi nga xam ne jéem nañ leen fee sos pour jéem a boole <clears throat> yëngatu yi moo xam ne aju ci niveau euh, mosquée inachevée euh, yëngatu yi ñu doon yëngatu ci cadre euh, statut personnel du musulman nga xam ne code de la famille bi fi nekk suñu kilifa yi daan ko contre ñun dañoo gisoon ne seen combat boobu war nañ ko continuer loolu defoon nañ ci liggéey bu am solo ci njiitu lu Euh, maître Babacar Niang rahmatullah alayhi mu doonoon ku dynamique woon ci jamono bi malgré âge ak wér-dem euh, ci loolu lañu nekk ba léegi ba léegi nii fi mu nekk nii ci wàllu bitim réew itam am na ay kuréel ma ne kuréel bu ñu créé woon Abuja pour islam en Afrique nga xam ne lu ñu bëggoon africain yi gën a góorgóorlu ñoom ci ci l'islam bi euh, ak bu ñu créé woon ci Soudan nga xam ne eh, jamono boobu xawoon na nekk tuuti mouvement eh, eh, religieux politique ci jamonoy histoire guerre Iran Irak bi ba fii ñuy waxee ni maa ngi nekk membre ci union internationale des oulémas bi nga xam ne docteur bi moo ko jiite te siège bi nekk fële ci Qatar pour wax rek ne ku yëngatu ci lislaam moom Euh, bu ñu la waxee ne da nga retraite na nga ko na nga ko mettre entre guillemets parce que liggéeyu lislaam xamul retraite euh, comme ni ko euh, suñu kilifa yu mag yi daan daan waxe rek abul ayub al ansaari dafa daan wax naa man xam man lan laay fan laay sukkandiku bu ngeen ma toog loo ndax yàlla nee na infiro xiifaafam wa siqaala bu ngeen ooyee fekk bu ngeen di di sa yëpp dem leen waxuma la sax yëngatu nii rek ci ay conférence yooyu waaye sax dem leen jihaad yi kon kenn amul droit euh, toog ci loolu la ñu nekk ba fi ñu nekk nii am nañu fi ay kuréel yu bare bare yoo xam ne initié nañ leen waaye comme suñu yitte bi gën a mag mooy seetlu bi ñu seetlu tasaaroo bi julli di tasaaroo suñu yitte bi gën a mag mooy bu ñu yëngat bu ñu yëkkatee loo xam ne li jàkk jàpp nañ ne du cadre bu mën a boolee julli di rek dañ ci dañ ci dañ ci maandu loolu nag boobu boobu boobu boobu boobu mébét du ñu quitté mukk fi mu nekk nii ñu ngeeti ci projet bu bees pour jéem a yëng boolewaat jullit yi séq kook ay kilifa yu mag a mag a mag yu bari yoo xam ne mbir mi moo leen yitteel ku mel ne Abdou Aziz Touré ca fasture ak yeneen i mbokk euh, loolu ci lañu ñu fas yéene euh, en tout cas jeexal suñu suñu dund lépp. loolu jàpp nga ne xam naa du yomb waaye jàpp nga ne mën na nekk. waaw li ma gëm mooy eh, mën na nekk te dafa war a nekk bu mënul woon a nekk yàlla du ko santaane yàlla dama naan bu mu lay laata wax sujo sujootal ba mu lay laata wax rukool d'abord dafa la wutal ay ay eh, tànk yu mën a lemu ba nga mën a sëgg mu ne la sujoo mu ne la rukool ba mu lay waat wax sujootal itam dafa la ko def ba nga mën a sujoot mu doon la ko wax lu mu wax rek te yàlla moo ne nañu ànd nañu ànd nekk benn te itam Euh, du sax lu ñuy gént mais dafa nekkoon yàlla nee na na ngeen fàttaliku loolu mu nekk genn xewul koo xam ne da ngeen tasaaroo woon nekkoon ay noon yàlla def na ngeen nekk benn bëggante bëggante bëggante ba àgg ci isaar ba àgg ci wayu siruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa euh, nga xam ne lislaam euh, ñaar rek moo am ku mag ku féete ku féete mag ak ku féete ndaw ki féete mag day ñaanal ki féete mag day day yërëm ndaw ñi mébét ñu gën ko ñu raw ko sax moom waaye ki féete ndaw day ñaanal mag ñi xam ne li muy yëkkati yaakaar ne moo ko yëkkati mag ñee ko yëkkati woon la lañ wax ne waaw mu ngoog léegi lañ day góor ga dafa doon dafa doon yëkkati moog doom ji lu diis mu yëkkati yëfi bi yëfi xaw a tag ci ci côté am doom ji ne ko papa yëkkatil bu baax maa yëkkati foofu. maa yëkkati fi doom ji daal moo yëkkatiwul. doo waaw doom ji moom ba yëkkati moom jur ku mu naan yëkkati la waaye la muy ñun li ñuy def du suñu jëf suñu jëfu ay ay jur la yàlla leen yàlla fay. Euh, Oustaz Seydi Khalilou euh, ci say jaar-jaar jaar-jaar bu riche ci wàllu xam-xam wàllu gëstu ko wàllu am teel am ñoo xam ne ñoo lay teet pour teg la ci yoon woowu. waaye dama déggul benn passage boo xam ne wax nga ne créé nga parti politique wala milité nga ci benn parti da nga jàpp ne daal politique fu ñu war a moytu la wala danga amul occasion pour dugg ci pour euh, jaare foofu askan pour servir bu ma waxoon tey ne bi ma juddoo ba léegi dem ci urne woote benn yoon laa ko mas a def te moo doon pour ci wàllu syndicalisme. maanaam lu ñu doon def commission paritaire yi ñu daan créer nga xam ne ñi fay représenter liggéeykat yi dañuy jóge ci ñoom foofu laa mas a wootee fii ci préfecture bu Thiès sinon élection yi ñu mas a def. te loolu lu yàgg la xam na. loolu loolu ay ay ay quatre la ay quatre-vingt un peu moins loolu temps yooyu la euh, euh, tey bu ma bu ma waxee itam ne man man mi man mi mas a wote man maay majoritaire fii ci Sénégal. parce que Sénégal bu ñu nee euh, treize ak euh, douze ak treize millions lañu wala quatorze millions lañu toujours élection yi mu ngi yem ci li gën a bari ay ay ay ci ay trois millions maximum lay doon ñi ñi ñi inscrire sax kon daanaka man bu ma nee mosuma wote mooy daanaka dama naan ñun mosuñu wote ndax itam dama dama gisul woon dama dama gisul intérêt ci ndax woote pour man du lu lu simple du benn acte booy def nii rek anodin waaye woote shahada la mooy wax ne eh, fii may kii may tànn ku baax la te lu baax la indi ci réew mi te loolu gisuma gisaguma ko moo tax eh, Euh, même alliance yi am ak yooyu yëpp. amul bu la ci convaincre boo xam ne daal. ben jamais benn mosul ci contre. waaye nag euh, li arab di wax axafu dara rey ni est-ce que duy waroon war a tax ba nga sóobu ci loolu maanaam euh, loraange fa mu gën a tuutee ci li nga yaakaar. saa bu ma doon wootee kon 93 laay wootee pour Iba Der Thiam xëy na mu ngi may dégg ndax non seulement sama wëllëre sama xarit la. waaye demoon nañu ba dugg moom ci waxtaan te booba tam maa ngi jiite man jamaatu Ibadu Rahman jamaa bi amoon xam naa mooy mooy première participation bu mu bu mu effectivement ci ay élection waaye amoon na man ay gis-gis yu ma ci gisoon yu taxoon ma ne euh, ba léegi nag gisaguma lu jar may wote même ñi ñuy tudde ay parti pro islamiste ak yooyu yëpp gisaguma loolu parce que démarche bi ma yaakaar ne loolu ta taxul ma sama condamné ñu ko def parce que man dama gis ne euh, mbirum mbirum mouvement islamique ci Sénégal seen seen revendication xajul sax ci ci ci bureau bi te waxtu woo boo déggee ne mouvement sàngam dem na allié ji ak parti sàngam pour kii boo xoolee yow lan moo ci lan la ci lislaam di gañee wax dëgg yàlla doo duma ko duma ko gis du ma ko gis parce que euh, di négocier ak benn euh, parti politique formation politique ci bu ma bu ci nangami député laa soxla ci boo gañee nangam nga ne def ma nang jox ma nangi poste ambassade wala nga jox ma ay direction wala nangam bay boo sax na nekk nga nommé commissaire au pèlerinage pour man loolu du revendication bu mouvement islamique war a def mouvement islamique euh, ay dañ ko war a liir duñ ci gis dara ci wàllu nit parce que ki ngay ki ngay ki ngay négocier bu la newoon tey euh, genn wàllu gouvernement bi dinaa la ko jox nga yor ko itam moo moo moo nga bañ cee dugg ñoo yem te bu la ko joxee tey mën ko jox te ëllëg mu mu nanguwaat ko parce que moom mooy jël décision. wala nga mu ngoog mu ngoog te te itam dangay ngay da ngay xaw a légitimer un peu li muy def parce que bu la nit ñi di xoolee bëtu euh, kii de lu mu nekk rek dëgg la da ngay euh, waxuma ne man noonu la waaye am na ñoo xam ne euh, nit mën na leen tax a bëgg wala ñu bañ nit mën na leen tax a def wala ñu bañ a def bu ko defee nag yow nekkatuloo responsable ci li ngay def rek mais da nga nekk responsable boowatul ci li ñeneen ñi nga xam ne. yaa leen tax a def waaw. Euh, oustaz euh, Sidi Khalilou foofu tere boobu lañuy des ba léegi waaye dañuy deltu ginnaaw tuuti ci histoire door a ñëwaat ci actualité deltu ginnaaw bi mooy euh, xëy na am na événement bu fi mosoon am boo xam ne xëy na fekk ñu bari ci ñun juddooguñu waaye nopp yi dégg na ko muy loolu amoon ci grande mosquée. boobu Cheikh ñu ne daf doon bëgg faat bakkanu Senghor loolu nu mu demee woon ak euh, noo ko jàngatee lu légitime la wala. Moustapha Lo rahmatulah mooy suñu mooy sama taawu baay sama taabu góor moom laa ko tuddee moom ma doon téléphoné léegi Moustapha Lo bokkuñu dara rek mais dañu xaritoo Moustapha damay jël témoignage bu Cheikh Tidiane si def ci moom te mu xam ko bu baax nga xam ne seen ñaari ndey ñoo toppante ñoo bokk ndey ak baay. soxna asukan ak maam Binta Kane ñoo bokk ndey ak baay kii jur Moustapha Lo kii jur kii jur Cheikh si ndax moo ko mag tuuti kii jur Moustapha Lo Cheikh si dafa wax ne Moustapha Lo capableul sax pour rey ginaar te ñu ko xam ñëpp noonu lañ ko xamee nekkoon benn xam benn boroom xam-xam boo xam ne ku ku ku ràññee ko la xam naa bu nekkoon ci jamono euh, moom defe naa ne bilinguisme moo ko jëkk moo ko njëkk a dund dëgg-dëgg fii ci Sénégal. arabe français. waaw euh, te presque autodidacte la euh, nekkoon euh, fonctionnaire bu mag ci mairie bu Kaolack mbirum wëllëre ak mbokk moo démissionnel boppam ci jamonoy Valdiodio Ndiaye ngir ànd bu bu mu àndoon ak Cheikh Tidiane Sy xam ngeen ne ñoo àndoon am keer ci ambassade ba Cheikh def ko premier secrétaire waaye daanaka moo yoroon liggéey bi. <clears throat> Cheikh mustafaa nag man acte boobu bi muy am sax dafa ma fekk bitim réew ñu ngi taxali ko bi may bi may gunge si ci Médine fi ma dëkkoon pour may dem aéroport dem Tunisie ba bind ko lettre tontu ma booba tabaski gaa ngi bëgg a jot sama benn xarit sa Alioune Guèye tontu ma ne Moustapha daje naa moom bërëb sàngam nee na jot na sa lettre dina la tontu ci ci fan yi tabaski jot xew-xew boobu am euh, dafa ni mbir moo xam ne man bu ma koy tënk mbiru Moustapha euh, Lo dama naan daxiyatu alfasaadayni ñaari fasaad yi mooy fasaadu al masyaxa ci Sénégal ak fasaadu ñaari ñaari yàqu gi am ci victime ñaari yàqu la ci ñaari yàqu ñaari yàqu-yàqu cëriñ ci senegal ak yàqu-yàqu politique lu ci yoonu cëriñ lu ci yoonu cëriñ am na ci loo xam ne léegi kenn mënu ko wax ne neexu neexu neexu la wax dafa na am na loo xam ne neexu la wax kenn mënu ko wax waaye daf ma wóor ne Moustapha dax yàlla ci loolu parce que Moustapha euh, ci dundam yëpp euh, maa ngi fi doon yoon léegi ay woy yu ko xaali bu bu Kawlax euh, ki saaxo woyoon ci ci bi ñu ko bi ñu ko bi ñu ko idaamee di wax ay ay ay jaar-jaaram ak ay jikkoom ku ko xam ci loolu nga xam xame te yàlla dafa def moom kot kenn moom rek la yaayam soxna Maam Binta kenn am ci ci amoon ci doom am dafa am ay jaar-jaar yu bare bare bare yu mu yu mu jaar dama naan Moustapha man comme fekkewuma affaire bi te jugé nañ ko itam xam naa ne rek moom musuma gis ci Eh, ci loi yi yi ñuy wax loi boo xam ne bi dañ naan ci intention lañ ko reyee ndax dañ ne dafa amoon intention rey parce que bal ba sax tàkkul xam nga bu fay doon dafa taal sax bal bi mu mooy ñu ne moom daf ko bëggoon a eh, rey na nit wala rey na picc wala rey na dinaar moom li suñ cheikh wax ne il était incapable pour mu rey ginaar loolu dafa firndeel keroog ci ne moom eh, ak lu mu mën yoroon na fital kenn werante wu ko yoroon na fital kenn werante wu ko hmm. euh, génn na fital kenn werante wu ko maîtriser nañ ko ndax gar garde corps yi waaye euh, koo xam ne kii amoon nga yéeney euh, def loolu te jege noonu président ndax turbine bi bi mu nekkoon la la nekk ak lu mën di am mbir la moo xam ne man waxtu ma ko fàttalikoo rek sama xel dem ci waxu yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ci ne hmm. ñaar ñi bu ñu yàqoo rek àddina bi yëpp yàqu politique bu yàqoo ak cëriñ te loolu moom taxiya yàlla ci loolu taxiya yàlla ci loolu foofu laa ci man a yem euh, maanaam euh, dafa am ay côté cëriñ goo xam ne ñoo ne woon kii moo def lii na ko boom wala la non au contraire gis nga moom bi ñu ko jàppee ni sëriñ si mobilisé woon ci jamono boobu ci njiitul Thierno Seydou Nourou taal Cheikh Abdoul Aziz Dabba Cheikh Cheikh Mbacké Gaynde Fatma ak Cheikh Cheikh Ibrahima Niass ñi ni ñu mobilisé woon Senghor recevoir na leen promettre leen ne leen dina ko amnistier mu waroon amoon beneen rencontre bu ñu waroon rencontre nag moom waroon ko fekk Popenguine ba ñu demee mënuñu ko gis ba ñuy génn la ñu kenn ci ñoom dafa naa la baax wax ne kii war nañu ci fan yooyu la la jël avion ne fépp dem France ñu rey ko euh, ci gannaawam waaw mais ak lu mën di am nit la sore woon na nekk ku violent moom moom li ñëpp seede ci moom mooy mënul woon a ren di ganaar ganaar mënu ko woon a ren waxantu mu laa day nit même bu fekkente ne mën naa ñàkk d'accord ak yow ci wàllu ci wàllu te lii may wax ni seede bi may wax ni Mamadou Dia ancien président du conseil loolu xale laa woon waaye fekke naa mu toog sama waajur ca résidence bu Médine di wax ay témoignages ci Moustapha booba am nañu conflit ñoom diggante euh, gouvernement bi euh, ak ambassade ba am nañu conflit Mamadou Mamadou Dia wax ne wax ne euh, rapport yi mu jot mu jóge affaire étrangère ci Moustapha mooy ci wàllu compétence am wàllu probité am ak yooyu mësuñu am diplomate bu mel ni moom mais politique moom politique rek la politique politique rek la politique daal moom sëñ bi bu bu jàddee yoon ak masiyaxa itamit jàdd yoon intaziri euh, saa àddina tukki na oxturaay bu dara déraaye daal euh, bu ñu ñëwee ci tey ni doxinu politique bi di doxee noo ko jàngatee en tant que intellectuel en tant que koo xam ne xamal na fi l'islam projet de société boo xam ne foofu la yëf yi waroon tegu pour nit ñi am jàmm li fi riir tey ci wàll woowu avion bi ñu koy dawalee ci wàllu politique bi euh, naqari na la wala. lool mais man loolu naqariwuma torop ci politique ndax mënu moon a séentu ci ñoom lu dul loolu. déedéet man kay bu ma ma dee am naqar ci sama bopp ak samay nawle laa ko am ñun ñun kaawul islaam luñ lu ñu def waaw ñun ñu ngi jàpp ne ñun ñun waxuma la sax waxuma la sax ñoom bu ñu bu ñu bu ñu sojee ñun ñoo leen di sëqatal waaye bu ñu seen seeni erreur seeni njuumte euh, sëñ Assane dañu ci entraîné maa ngi lay jox ñaari exemple loolu nga bërki démb bërki démb la quatorze hmm. septembre Sénégal gépp ñu ngi doon màggal ne nañu faatu génn àddina Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh rahmatullah alayh le quatorze septembre wax ne mooy dix-septième anniversaire am ñëpp septembre ngay dégg ñu du ko wax fii ñuy toll nii léegi senegal a ngi Sénégal yaa ngi waaj a aji boo demee léegi hangar ba dañ fay def pèlerinage 2014 li tax ma wax bu si fi leeg cinq mois ak quelques dix jours ci lay am dix-huit dix-huitième année bi mu bi mu génneeg léegi ndax muy génn àddina le douze jumaada oula le douze jumaada oula mille mille mille quatre cent dix huit le le le le douze jumaada oula fi leeg cinq mois dinañ àgg ci dinañ àgg ci dix huitième anniversaire bi ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi feetal dix septième parce nga ni ni l'islam avancé même ba ci faatu góor gi ñun ñu ngi ci tànn bi fi mu nekk nii yàpp julli di paasewul ñuy wax pèlerinage 2014 yow calendrier grégorien ban weer moo ci weeru aj am na. ñoom xëy na ci biir weer waa déet dama ne la am na 2006 euh, ci même ci même année bi aj aj nañu ñaari yoon <laughs> màggal gis nga màggal Touba ren dinañu màggal dinañu màggal ci màggal nañu 2014 dinañ ci màggalaat léegi nooy wax ne màggal 2014 ku la wax ne man. 18 safar la ma tubaab bi jël yóbbu ma bu ñëweetee na ngeen ko fàttaliku sant ci yàlla ñun ñu nekk fa ñun xamuñu safar xamuñu jumaada wala ñu li ñu xam mooy calendrier grégorien te. waaye waaye ña ko organisé moom euh, ci safar bi lañ ko jàpp. heureusement waaw ma ne lu dul màggal gi. parce que xam nga xam nga juróomi rakk yi ñaari rakk yi. Euh, le 5 septembre lañ koy def def nañ ko bu yàggul te moom bu doon sagoon duñ ko kenn du ko def ay septembre ak yooyu dañ koy def ci taarix bi mu doon bind bi mu doon bi mu doon bi mu doon bi doon dund moom te parce que ñoom dañoo xam gravité loolu gravité li ma wax ne ñaale bu ñu sojee ñu ñoo leen di ñoo leen di euh, tisolil gravité bi mooy ñun dañu defe ne du dara dañ naan c'est la même chose da nga jël calendrier bi moom ngi jël beneen or du du loolu parce que reconnaître loolu euh, Assane mooy reconnaître ne yàlla am na doom mooy mooy reconnaître dama ne benn xale bu jigéen moom ma sa ndax ndax nit mën naa julli ci ginnaaw imaam bu takk gàllaaj ma ne ko boo mënee julli ci ginnaaw imaam bu def ci poosam kay nga mën julli ci ginnaaw imaam bu takk gàllaaj mu ne seen carte d'identité li ci nekk mooy ñu ngi judd bi yàlla amee doom bu mu am nangami at waaw ci leen judd bi doon bañ loolu saxaaba yi doon bañ ba ne bu leen jël mukk boobu taarix suñu kilifa yi kenn mësu ci kenn mësu ci taarixaal xoolal alaaji Malik radiyallahu taala anhu dañu wax ne ba 1902 la jëkk a gàmmu ci taawoon bi ñu demee ba 2002 nga dégg ñu ne ñu ngi célébrer centenaire gàmmu taawoon est-ce que mu ngi doon door a am cent ëpp na ko ëpp na ko ñetti at yu teg parce que parce que lu ñu ga parce que calendrier boobu dafa jotewul ak suñuy suñuy jaamu yàlla jotewul ak suñu yëngatu su ak suñuy daal dara dara dara loolu moo tax ma wax la loolu nga cité noonu mu ngi mel ne benn genre agression culturelle la boo xam ne mën nañ koo xoolee ci lii xoolee ko ci leneen xoolee ko ci suñu tëralin yeeg suñu yoon yeeg suñu code de la famille bi nga doon wax sànq ak yu ni mel léegi loolu nga yaakaar ne euh, lu ciy pexe pour askan wi mën cee génn. li ci pexe kay mooy li yàlla wax rek yàlla moom nee na waxoon nañu ne bu ngeen leen toppee dinañ leen dérapeloo dinañ leen dérapeloo ngeen dem jàddi seen yoon yonente bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy firi loolu dafa giñ wax ne la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa ziraan bi ziraain xataa law daxaloo juxra dabbin la daxaltum bu di ngeen fi bàyyi seen valeur yi ne ko fi ñukk benn xale day judd day ñu tudde ko way juróom tudd ko Moussa ñu naan kon Moïse nga ko der waaye Moussa mu ne c'est la même chose boo demal ci benn tubaab bu tudd Moïse nga ko ko boo boobatul mu fital la waaye ñun dañ naan c'est la même chose waaw c'est la même wax léegi tey loolu ñu loolu yonent bi doon moytuloo moo ñu indi moo ñu indi ci lii da ngay xool rek tubaab yi xam nga tubaab li tax suñu mag ñi tudd tudde woon ko tubaab mooy ku alku tabaab xam nga mooy alku waaw mooy mooy ku alku ñoom alku gi du caaginu dañoo xonq wala déet ndaxte eh, naar bi xonq bi bu dee jullit eh, ab shérif lañ ko ab yaaram lañ ko wooyee mais tubaab pour ñoom alku mënta paase wedd yàlla moo tax ñu tuddee woon leen tubaab te itam euh, loolu mu ngi mu ngi fii des ba léegi léegi nag maanaam mën nañu wax ne ay tubaab yu ñuul ñoo fi waaw ñun cest à que ñun ñun xam nga léegi xam nga léegi gis nga xeesal xam nga xeesal boo ko gisee kay mooy boo sañoon da ñuul da ñuul waaye sax du caaganu der bi cest à ñun bu tubaab bu tubaab yi demoon ñuul ñuul yi léegi bu ñu demoon xewal ñuul léegi da gis suñu xees ñi dem ñuulal ji waaw c'est-à-dire tubaab bi moom daal lu mu def rek mooy dëgg xam nga léegi li ma la wax nii li ma la wax léegi nii ci aj gi wax la ko ci ci ci ci ci gàmmu geeg yeneen ak yeneen ak yeneen euh, gën na garaaw loolu barki démb ndeysaan sama benn kilifa moo hospitalisé fii ci hôpital Saint-Jean de Dieu ba dem fekk ci kab bi mu jëloon bi mu jëloon lal bi ci kaw ñu takk ci benn croix damaa yegg aju croix bi dugal ko ci seen ci ci tiroir bi ne ñoom nañ jël suñu xaalis doy na sëkk waaye léegi xam nga nit ku nekk ci lalu hôpital croix la croix buy wax ne yàlla Isa dañ ko rey daaj ko mu tiim la te ñu wax ne ne la même ñi nekk yow sax nañuy tudd yàlla nañuy nañuy tudd yàlla nañuy tudd yàlla pour yàlla bootul boo fa deewee ci ci ci ci ci ci ci yaa ngi dee ci suufu croix bi xam nga ñoom xam nañ loolu boo dégg boo gisee suñu xale yu jigéen di dem ci école labbe yi di muuru rek ñu di leen dàq te xam nga ne muuru ñoom seen sœurs yi sax dañuy muuru seen sœurs yi dañuy muuru n'est-ce waaye ñun dañoo bañ dañoo bañ li ñu nekk ñun ñu bëgg li ñu nekk ñoom waaw man chaque fois sama doom hospitalisé naa ko foofu du sax maa ko fa hospitalisé naa sama doom bu jigéen la jëkkëram moo ko fa hospitalisé mu waroon a am doom ma ñëw fekk ko waaw bu ngan kii dama ko ajji bi kii ñëw dama dama ko aji dama na dama ko du mu bàyyi mukk sama sama sama patient ab croix tiim ko te man damay fay sama xaalis seen école yi ñuy jànge croix bi mu walay tiim di la jàngal du tuuti lu lu tuuti ñoom léegi booy seetlu booy seetlu football yi Assane dangay gis léegi ay ay joueurs yu jullit yoo xam ne si dañu dugg wala ñuy génn ñuy ñuy def lii gis ngir gis tubaab yi di ko def ñu defee loolu dara te fekk ñoom dañuy julli fekk mu ngi mel na nga sujjoot yow kenn du ci dugg ci terrain wala nga génn te defuloo sa julli googu te julli googu croix boobu lay lay lay lay lay saxal moo tax ñun dama naan ñun bu ñuy wax naan laïcité effectivement laïcité moo fi am parce que laïcité laïca mooy mooy moo mooy catholique yi nga xam ne yi nekkuñ ci nekkuñ ci euh, nekkuñ ci ci ci séminaire yi ñoo ñooy laïc pour ñoom laïc mooy catholique bi xëy dem mees toog ci banque bi ñu di ko waar ku koy waar kooku mooy religieux moom mi ñuy waar ci biir église bi kooku mooy laïc moo tax effectivement buñ ne ñun dañoo lay. exactement est-ce que sax rendez-vous bi ñun askan wi nga xam ne ñoo wati woon ne Sénégal dafay nekk pays boo xam ne dafa laïc est-ce que loolu xëppul ci suñu kaw tey. pour ñu mel ni ñu mel nii. parce que xam nga même France tuddewuñu looy laïcité France en 1905 séparation lañu loi séparation la ñu wote mais tuddewuñ ko laïc laïcité ñun Sénégal rek nga dégg ñu naan euh, euh, le Sénégal est une république laïque démocratique et sociale muy premier muy article un depuis suñu constitution bu njëkk ba ba léegi France tuddewuñ loolu laïcité ñoom lu ñu tudd mooy séparation ñoom xam nga lañu ñu bëggoon enseignement yëpp dafa nekkoon ci loxo église ñu ne xam nga lan la euh, bi ñu gisee ay mbir yu bare bare yu am yoo xam ne histoire nattali na ko ñu ne léegi li gën a jaadu mooy église nañu jàngale seen enseignement seen liturgie nañ ko jàngale ci seeni bërëb mais nañu bàyyi société bi ñu jàngal seeni doom ñu séparer enseignement bi bi ñu séparer enseignement xam nga boo séparer enseignement rek lépp dafay dal di séparer wu séparation boobu ñun moom la ñu tudde ñun layit arabisants yi sax ñoom li ko tuddee moo gën a garaaw moom elmaniya xam-xam jëxlaaniya boobu moom ñun ko tuddee elmaniya lañ ko tuddee ñoom lañ loolu xam-xam la xam nga loolu moo gën a garaawati ah wala xëy na almaniya ndax mu oyof ko ah déet elmaniya lañ ko tuddee <laughs> xam nga elmaniya moom loolu mooy ci xam-xam lay waaw ci xam-xam lay lay lay lay dëgg donc loolu la ñu daal ñu daal asan mm-hmm. li ñu daal musiba la léegi nag problème bi mooy li li ñu constaté mooy ñi jéem a def effort akas néew pour dellu siwaat ci seen diine joxañ bi ñu leen joxañ ñëpp xam nañ ko mooy ay terroriste lañu képp koo xam ne ki yow individu bi yaa ngi jéem a comporté wu en tant que musulman ci sa lépp ci say col sax terroriste lañ lay tudde bu dee groupe terroriste lañ lay tudde barki démb ci anniversaire u 11 septembre Obama dafa dem ba du ma wax jidda màkk laay wax parce que bu demee jidda rek pratiquement makk la dafa dem ba jëdd ba jidda donc pour màkk ci assurul xurum yi ñu ngi waajal aj gi mu dajale fa pays arab yi ne leen dama bëgg xeex dawla islamiya te yéen laa bëgg xeex boobu lu muy jar ngeen fay ko ñoom ñëpp ñu d'accord signal ko na ko lu mu lu mu jar ci réal ci dollar ñun ñoo koy fay Arabie saoudite jiite ko. muy état islamique nekk ci. Irak ñoom ñoom na na nga tudd xam nga ñoom ñun ñooy changé ñoom ñu ñuy wax ay ñoo léeg la ñu wax qaida fii léeg la ñu wax Daesh léeg la ñu wax dawla islamiya mais gis nga ñoom américains yi xam nga ñun ñoo leen di weddi naan xeexuñu lislaam ñoom Baye Fall ak Baye Jaxate ak bàyyi ñoom daal bu tuddee l'islam lislaam bi la ñuy xeex ñeneen loolu moo leen tere nelaw loolu la ñuy xeex fële ca Égypte ba fa ay nit yëngatoo ñu sax xeer waxtuma laa ngànnaay dem ñu wooteel leen ñu gañe pour war a doxal lislaam àddina bi yépp waxuma la waxuma la américains yeeg euh, tubaab yeeg français ñooñu comme li ñu def lii bi mais jullit yi ci seen bopp ak commencé par borom xam-xam bi xam nga li doy waar mooy kenn ku ci nekk rôle ba nga cay joué borom xam-xam yi xoolal xam nga ne ku mel ne Aliou Juma dégg nga déclaration yi mu def ñoo jóg ne kenn du fi seetaan loolu kenn du fi seetaan lislaam di taxaw kenn du ko fi seetaan ca Afghanistan lañ ko commencé woon américain yi bi Afghanistan di xeex ñu xam ne Union soviétique la ñuy xeexal dañ leen doon jàppale ndax Union soviétique boobu temps seen noonu la woon. waaye ba ñu duma Union soviétique bëgg a yëg seen bëgg a taxawal lislaam dañ ne kenn du fi taxaw kenn du fi taxawal lislaam foofu lañu fekk Taliban daf leen lu leen neex jëli seenum kazaay fële ca ca ci Angleterre indi ko solol ko ab ab ab ab jàllaa bi mu nekk fa di di atte foofu lañu ñu commencé ba léegi fu ñu mës a jaar Iraq ak Libye fu nekk moom daal nañu nañu dinañ toléré lu nekk ba mu des lislaam te lool li leen ko may mooy jullit yi est-ce que xam nga ne xeexu Gaza bu bi bii nii bi passé nii Arabie Saoudite ak Émirats ñoo ko financé ñoo ne Israël loo fa ñàkk ñàkk ci alal yàlla xam na ne lii may wax ne ñi am information xam nañ ko loo fa ñàkk ci alal bu bu ko Amérique fay bu ko keneen fay ñun ñooy fay facture boobu. dama ne la Arabie Saoudite Arabie Saoudite Arabie Saoudite ci boppam Màkka nekk fa ak Madina ñoo jiite xeex boobu ñoom ñoo ko jiite parce que pour ñoom du daanaka am na ay information yoo xam ne yow tam euh, nitu nitu communication nga am na information yoo xam ne nekk lu secret léegi dugg dugg na ci ci ci kii Arabie Saoudite ak Imaaraat dama la wax taxdiidan Imaaraat moom seen seen ministre ak délé ak Israël bi France la ñu daje ñoom defar def seen seen seen seen parce que booba fekk na ñoom itam ñu ngi rey ñu ngi tëj ak a rey ñi nga xam ne ñoo bugg a taxawal islam foofu ah yow boo Arabie Saoudite Arabie Saoudite am réew foofu Hijaz la woon ak naj rek yooyu gaa yi xeex tudd ko seen maam al mamlaka al arabia saoudia seen moomeel la kon ñoo ko moom kon léegi ñoom bu ñu daanu woon tey bu ñu daan woon tey ku fa juddoo koo doo xam sax looy tudd borom xam-xam yi àndoon ak ñoom li commencé ci borom xam-xam bu mag boobu Abdul Wahab ñoom ñu cëral leen rek bu yëfi ñu fi ñu ñu fal leen def leen ay mufti loolu moo xew ba léegi borom xam-xam yi léegi yi. te tegal fat seen fatwaay yi mooy na dem ci na dem ci àll ba. bu yow asal boo solee mu gàtt nañ wax ne dafa xaraam waaye buur bi bu solee mu muy direeku nañ ci noppi bu ñu wax ne buur bi bu mu warata direeku waaw bu bu buur bi watee sikkimam ba mu sedd wécc bu nañ ci noppi waaye bu ko keneen defee benn baadoola fale nañ ko wax loolu loolu mooy mooy seen faf seen fatwa mooy loolu seen fatwa moom dinañ fatwa lu nekk ba mu des la buur ba la la buur bay def jamais seen askan yi. ak ña leen jiite. est-ce que mënuñu wax ne seen euh, bopp yee am problème maanaam euh, dama bëgg wax ne askan yi mu ngi mel ne seen ngëm-ngëm ak seen bëgg-bëgg ci wàllu doxin dafay wuute lool ak fa leen euh, bopp di jëmale est-ce que mënuñu wax loolu. dégg ba li nga maanaam boo mm. demoon xëyee fu mel ne mm. askanu Égypte. Mm. wala bu Libye ñoom ni ñu gëmee ne diine moo war a àttee ni ñu gëmee lislaam majorité bi nekk jullit ak yooyu. nekk ñu ordinaire ñoo xam ne daal dañu bëgg ommatu ci wàllu diine jooju. Mhm. waaye bokk ya toujours. Mhm. maanaam njiit ya dafa mel ni moo leen di pousser toujours pour euh, feneen foo xam ne seen jubluwaay. loolu est am ci ah, loolu am loolu am sa xam nga ne bu fekkente woon ne bu fekkente woon ne tey population yi ñoo libre gis nga Bush mu njëkk ma Bush al ab mi daan tuddee Bush ibn Abdul Aziz ndax boobu dañu wax naan Bush ak Fahd daanaka ñoo bokk. ñoo bokk baat Bush Bush ci jamono boobu jamonoom dafa am benn bés ma Medina ma dugg ci benn taxi borom taxi bi di tux ma ma waxtaan ak mu mu arrêté tux ñuy waxtaan ma ne ko yow baax nga ah. yow noo mu ne ma Usaama ma ne ko xanaa yow mbokk ma ne ko xam ak mu ne kooku rek mooy góor ci ci ci ci ci ci suñu kii ma ko ma ne ko comment yéen yéen da ko bugg fii réew bugg nañ ko mu ne ma bu ñëwoon bu faxli bi booba temps jamono faxli la mu ne bu ñëwoon woteeg faxli bi fii biir kër faxli sax moom la ñuy woteel waaw waaw loolu moo am parce que jullit yi mënuñoo bëgg lu dul lislaam parce que lislaam asan mooy jàmm àddina mooy jàmm alaxira te jullit bu gëm dëgg-dëgg mais loolu doo ko jënde doo ko jënde dara amaa nguur nag moom daf lay yóbbu ci ndox ci ndox da ngay dem ba boo baaxoon gis nga Abdoulaye mi laata muy ñëw li ko doon wax noonu mooy nitu nit nitu nit ku simple la nitu tradition la bi fas di feebaree ba mu remplacé ko comme moo ne ko wali wali ahdi gars yi di ko tëj ci di ko jàngal ñuy soli costume di ko karwaat bu ma saan karwaat ba génn buy dox sax nga xam ne kii xamul loolu waaye léegi mokkal na affaire américain yi mokkal na ko mokkal na ko léegi te parce que boobu gars yi dañ ko xawoon a ragal bu xawoon a kii tuuti rek ñu jëlaat keneen ci sultaan ak ñeneen ñi ñu gënoon a américain am jikkoy américain mais léegi moo leen gën a euh, américain fuuf loolu lay wax moom léegi ñoom moom li muy wax gars ñi mooy fu ñu même boroom xam-xam yi nekkoon Arabie Saoudite daan woote xiwaar naan shabab bi xam nga sànq yaa ngi mu doon wax affaire shabab ma xam dugg nañ ci shabab bi commencé di xeex parce que ku mel ne Usaama bi mu jógee Afghanistan dellu si Arabie Saoudite fekk américains yi ñëw fa ci guerru euh, guerre boobu ñoo doon wax ne dañuy libéré ji Kuwait mu mu analyser affaire bi ba ba ne léegi man li ma taxoon a xeex kat fekk naa ko ci sama réew li ma taxoon a génn fekk naa ko ci sama réew ci loolu lañ ko bundu xataale ba génn ko destitué ko ci nationalité am daal ne sax bi nañ jinsi am léegi nekk du sawde ba yaam nekk fa nekk nit ku baax non saoudien moom yaman ay cosaani cosaan la woon mais saoudien la cest à moom baayam pratiquement moo tabax euh, kaaba gi moo ko tabaxaat baayam daa baayam ci benn bés moo jëkk am avion foofu Arabie Saoudite baayam ci benn bés daana surveiller ay ñetti chantier yi al-Quds ak Medina ak ak ak euh, alxaramul yi ci benn bés bi ci avion am euh, gaa ñi fomantal ko bañ ne avion bi dafa daanu ci ci ci ñu sax bu nationalité am bugg rey mu génn daw dem Soudan ñu retiré xaalisam bi mu amoon yépp te ñoom kat bi américains yi ànd ak afghans yi doon xeex ak union soviétique dañ leen doon encouragé boobu foo jaar ci arabie saoudite imam buy xutba bu nekk day rëbb kii di di di di inciter jeunes yi pour ñu dem xeexi mais ba ñu demee ba xeex ba ba duma Union soviétique xam nga Union soviétique Afghanistan la daanoo Union soviétique en tant que superpuissance sësoon rëkk ci Amérique daanewul fenn fu dul ci Afghanistan waa Afghanistan ñoo ko daaneel ñoo ñu tudde woon al arabul afghan nag ba ñu ba ñu jógee foofu ñibbi ci seen réew fekk fa lu mel ne la ñu bàyyi Afghanistan commencé di ko wax ñu ne loolu du ci dal am ay borom xam-xam yu baax ku mel Cheikh Salih Al Hussein daal di moom wax ne ne xale yi nañu nañu nañu def ak ñoom xewaar nañu def ak ñoom dialogue waxtaan ak ñoom pour jéem leen a convaincre parce que xale yi lu baax lañ bëgg ba xewaar boobu commencé woon dafa mujj buur yi dafa mujj buur buur buur bi ne affaire xewaar moom amatul léegi daal dangay ngay da sëgg rek. defal defal waaw wala amatul amatul amatul amatul xewaar. jërëjëf euh, jërëjëf oustaz euh, Sidi Khalilou xam naa bu dul woon li ñuy waxtu yi dab doon nañu dem ci ay tomb yu bari ndax yu bari nga ci sama kanam euh, bëggoon naa ñu taxaw ci wàllu jeunesse xam naa di nga ci jaar tuuti ci ci mbëmbëstal waaye dafa am benn tomb parce que li nga wax yëpp dafa mel ne ñun amaguñu indépendance bu fekkente ne ñun ñooy monde islamique bi amagul indépendance buum yi mu ngi nekk ci loos yi ci ñu ko téye ñu ngi ci biti ba léegi mu ngi mel ne ñun itam ci Afrique ak ci Sénégal ak yu mel noonu suñu karwaat yi daal ay buum la yoo xam ne ñoo koy xëcc di ko xëcc ñu ngi ci biti léegi loolu mu mel ne problème la boo xam ne laaj na solution waaye fa may laajee euh, fa may toftale loolu ci ci laaj bu ñu ñëwee ci cadre diine ji dafa mel ne euh, yow jiite nga ay organes yu bari fekk nga ay congrès yu bari ci biir Sénégal ak ci bitim réew euh, lépp aju ci lislaam ak projet yoo xam ne pour développer askan yi la waaye yooyu yëpp mu ngi mel ni ay mbàttu la yoo xam ne euh, ña ko moom ñu nga ca biti mu mel ne sénégalais bi ba léegi créewul wala bariwul ñu créé loo xam ne fii la nekk ñu war ko financer fii war ko suqale askan yi fii lu waral loolu ñàkk bi la wala ñàkk stratégie. du wax ne sax am na c'est-à-dire que euh, ñun. wax bi ñu yoree anabal alimi li shabab islami. waa mi. bu ñu daan jël ay ay ay orphelin ay nit ñoo xam ne seen waajur dafa gaañu di leen dimbale dañ leen daan wax naan ñu dey lii ñu def nii dañuy dañuy ragal mu mu tayal loo sénégalais yu bëggoon a def lu baax <coughs> ndax ñi nga xam ne ñëpp ñoo am kafaale yi boo demee man dem naa dem naa fu nekk enfin waxin la waaye musuma réaliser benn projet boo xam ne bii dañ naan projet bii Malick sàngam moo ko def wala kenn ci njabootam ay citoyen ordinaire lambda comme ñun ñoo ko def jàkk ji ñu jëkk tabax fii Sénégal fële ci campement nga ko xew bi euh, nga xam ne moo nekkoon secteur général adjoint bu bu bu bu waam ñu dem di seeti bailleur bi ki nga xam ne moo ko financé dañ ko fekk ci station muy pomp di jaay di jaay di jaay kii ma defe ne woon dañuy dem fekk ko ci benn pale ak yu mel noonu kooku moo ko financé am nañu ay ay projet yoo xam ne am nañ benn teen boo xam ne ñu ko tuddee biirul axawaat ñetti xale yu jigéen yoo xam ne ñoo ko financé ki ci mag 16 ans la am collè ay yenn lañu woon yoo xam ne dañu doon seetaan benn film benn kii ñuy wane Afrique ñu xiif ñu rek ñu daanee dañuy cotiser ñoom dimbale suñu leen mën ñu cotiser tabax ci teen boobu am na benn jigéen Kuwaysiyen boo xam ne bi canam bi ñu koy takk canam la jël tabaxe ko jàkk yooyu moo doon li leen def mais malheureusement nit ñi du ñu am information parce que fii malheureusement ñun fii xam nga ñun émission yi ñu am même suñu rajo ba nga xam ne ñoo ko moom suñu groupe bi ñu xam ne moo ko moom sax boo neexee ma tooñ Seydi Lamine ne ñun lu mel nii lañ ci am tànneef dine jamono ak yu mel noonu li ci des ñeneen ñi ñoo ko am te ñoo ñeneen ñi am nañ leneen information yi du jàll nit ñi duñ ko xam mais malgré loolu am na yenn ruq yoo xam ne ba fa demee xam ne sénégalais yi ñu ngi financé barki démb laa jógee kokki gis nga boo demee kokki at moo fa demee di nga fa fekk projet boo xam ne bi da lay yéem waaye ren jii man daaw dem naa fa fekk benn projet bu ñu doon commencé bi ma ñëwee xool projet bi ci bët rek li ma estimé mooy dama naan ONG islamique yi nekk fii boo dajale woon seen projet yi seen jàkka yeeg seen teen yeeg yëpp projet boobu ko ëpp doole mais du am du am du du du du du am euh, maanaam média bu ko bu bu ko bu ko gis ku mën a joxe ci turu diine ba àgg ci fu sénégalais yi àgg li des nag mooy ñu organiser ko dugal ko mu dugal waaw organiser ko mooy lool rek moo ñu organiser ko organiser ko moo xam azaka yi la moo xam même sarax gis nga sarax yi ñaari dërëm yi ñuy saraxee juróomi dërëm par àjjuma boo demee àjjuma du nekk boo ko boo mënoon recenser li ñu li ñu li ñu li ñu saraxee ay ay dizaine wala ay centaine de lay doon nga xam ne ay juróomi ay juróomi dërëm ak fukki rek la ah, mais comme kenn organiser ko loolu rek moo tax loolu moo des jërëjëf oustaz Sidi Khalilo tomb yaa ngi ci suñu kanam waaye yoon yemul ci benn euh, ñu sant la bu baax a baax gërëm la ci disponibilité bi euh, am mbégte ñëwoon fii fekk la ci Thiès tey pour tourner na fi tànneef euh, xam-xam bu bari sotteeku na fi ah yaakaar na li fi jot a jib ci expérience yi nga fi tracé wane na ne rek ku bëgg a defal yàlla yoon waa ngi nii priorité yaa ngi nii te loolu moo ci ëpp solo. bu ko defee itam euh, wane nga ne bàyyi nga may nga bët itam sa réew mi nga xam ne ci nga bokk mënoo cee bañ a bokk euh, sa gis-gis itam leer na ci ci côté politique bi ci côté social bi lu ci war a li mu war a doxee ak ni muy doxee ak écart bi dox ci diggante bi muy émission bu am solo boo xam ne jàpp nañu ne war na am beneen sax bu ci toftalu bu ko defee tomb yi nekk suñu kanam te jotuñu ci woon àgg ñu àgg ci ma sant gërëm équipe bi nga xam ne àndoon na ak man di euh, Papis Mbaye ak Saliou Bey ak euh, Thiam bi nga xam ne àndoon ak ñun ak Mantoulaye Sarr bi nga xam ne moo monté émission bi ak ñu ko exécuté ci régie bi ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen jox leen beneen dox daje ci seen émission tànneef jër ngeen jëf ci ànd beeg Walfadjri TV di télévision bi ngeen tànne ci biir télévision yi ah ko defee ñu. 18 heures jot na bisimila ci xibaar yi ci gàttal ay samba boyu gannaay bu fees dell ñoom ñoo wàcc biig ci diwaanu Kaffrine daal di fay def ci sunuy koppar jot nañu koy nangu ci commerçant ya nekk